loolu ñu wax ci coow bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye euh, Niang euh, ci ñaari jàkkaar seen jàkkaarloo kon njiitu Pastef ak jëwriñ bi ñu dénk wàllub tourisme alxames gi lay doon ñaareelu fan bu weerub février muy ëllëg kon ca tribunal Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang di ko toppee kon sos ci dossier Prodac tax mu daal di koy yónnee ab citation directe ñu indi ci ak Fatimata Diop Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ku ci nekk dañ la ko ci kanamu chambre correctionnelle bu tribunal bu grande instance de Dakar mu mel ni leader bu Pastef ci biir dossier bi dañ koy toppee ci wàllub diffamation maire bu Ziguinchor nag dafa waxoon ne rek ci ab janoom ak taskatu xibaar yi que ne ancien ministre de la jeunesse bi dafa détourné lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ju Prodac ci noonee nag Mame daal di rek lancé défi maire bu Ziguinchor ne ko mu génnee ay preuves yu rapport yi e dañ ko épinglé te yore yooyee dossier génnam bu mujj Ousmane Sonko ca Kër Massar dafa ne rek dafa gis bile rapport ci internet bi Ousmane Sonko ndax am na lu koy obligé mu daal di présenté wu ca tribunal li wéete wër ñenn ci ay juriste dañoo jàpp ne ci wàllub diffamation ñu yóbbu ko ci kanamu juridiction wu jugement bi nag te la ko ci ab citation directe que ñu tuumal ak ki weddi tuuma ku ci nekk bu la neexee mun ngaa bañ a présenté wu bu fekkee mbir mi ñu ngi koy soog woote mu mel ni juge bi dafay rek lu jëm ci wàllub montant koy versé partie civile bi ñu daal di renvoyé bii les procès ba beneen date ci fàttali nag dossier juridique la boo xamante ne ne mu ngi opposé ñaari homme politique yoo xamante ne ne benn at képp moo des ñu jëm ci présidentielle yu 2024 yile euh, muy kon euh, coow bi dox ci seen diggante Léopold euh, ëllëg ñoom ñaar ñëpp ñu war a dem tribunal waaye ni ko Fatima waxee bu leen neexee mën nañ faa bañ a teew waaw loolu mooy mbiru vingt neuf milliards yu waa Prodac donc am na loo xam ne ni Sonko du ko jiiñ ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang moom mu defal ko benn situation directe donc euh, ça veut dire ne que encore une fois de plus loolu mooy wone pourquoi on parle très souvent de la deuxième institution mooy mooy l'institution judiciaire encore une fois de plus encore beneen dossier buy ñëw tegu ci loxo justice et que justice war koo mun ko leeral ci ñoom ñaar ñii kan moo ci wax luy dëgg ak ku ci waxul lu dëgg loolu defe naa ne yoon moo ko yoon donc loolu dama jàpp ne que yoon a mën a àtte loolu pour que mbir yi leer comme nu ko Mame ñaa waxe def na citation Sonko tamit am na loo xam ne ne peut-être que moom mën na ko wax te nit ñi jàpp ne peut-être que du moom mais ba léegi dara leerul mbir mi daal ci loxo justice lay ne parce que luñ ci mënta wax rek ay élucubration lay doon mais comme Mame Mbaye dafa def citation directe et que Sonko tamit nee na moom dina ñëw taxaw devant la barre pour expliquer wu c'est déjà une bonne chose mais le gindi askan bi ci ku nekk ka ca am dëgg ak ka ca amul dëgg parce que loolu moom moom il faut que justice bi mën koo leeral leeral ba mu leer nañ comme ça su boobaa ñu jàll ci leneen parce que Sénégal tamit bari na ay euh, problème yoo xam ne ne day euh, dal ci loxo justice mais à chaque fois dafay am ay problème parce que tellement yaa a trop de papiers yoo xam ne ne finalement sax pour mun koo euh, maanaam seet ko euh, ba pare mun a xam fan la féete ak fan la dëgg féete wut loolu yenn saay day xaw a yéex trop ci justice parce que le temps de la justice n'est pas notre temps donc comme on a l'habitude de le dire très souvent occasion la itam moosu xëy na ngir élucider coowal euh, Prodac bi le amoon lu ñuy def ci kanam tuuti ministre yi ñu tudd nii ci affaire Covid 19 xam nga nu ñuy def ni ku tudd di sama tur ma kalaame la foofu lañ jëm yéen laata sorti Ousmane sonk ci 2023 bii ñu nekk ban presse fii ci Sénégal moo lawte lawteewul pendant un mois lu jëm ci vingt neuf milliards yu Prodac ban presse moo ko tëb pendant un mois ñu ciy wax ñépp ci wax ñépp ñépp woon dellu soit ci historique bi waxaat fan la fan la fan la audit bi commencé kan moo ko santaane fan la jaar ba ëgsi fii tey ñu wax ci wàllu politique démission yi ci am ñu toog ba dellu soit ci tey waxaat ci affaire ci affaire bi euh, Ousmane Sonko wax ci Mame Mbaye Niang porte ko plainte parce que ay preuve la koy laaj. mais ndax nee na Sonko dafa ne mu ngeek euh, rapport IGE boo xamante ne ñu ngi ko cay euh, tudd te rapport boobu existé wul. dama ne Sonko inspecteur impôt et domaine la ñu bootu ci ministère des finances waxuma am na wala amul mais information ci ŋàbbin wu setul ci Prodac picc yi naaw sax sabe nañu ko. wax dëgg yàlla li ci des nag ci wàllu yoon yow ma yónnee la citation directe pour diffamation ana nan la mën a toucher yow crédibilité nit ki bokk ci élection te am na ñuy wax wax yooyu caaxaan baaxul caaxaan baaxul bu ñu bañee sonk wala keneen ku dul sonk bokk ci élection daañu ko galgalee naneen lu bokkul ak citation directe boo xamante ni bii diffamation la diffamation la ñu annoncé gum parce que kii kalaamee danuy loolu moo ko metti diffamation mais dama ni diffamation boobu noonu laa yéen presse bi ñun ñu koy traité ni ni ni maam Mame Mbaye Niang kalaame na Ousmane sonk ndax daf ko diffamé ci xaalisu Prodac bi ban presse fii ci Sénégal laan yi moo amul un mois boo xam ni dafa topp di traité ci émission ndumelaan yi ak yeneen émission yi am ci yeneen télé yi vingt neuf milliards yu Prodac et tey Sénégalais yi am sañ-sañu laaj ni xaalis bi ñu doon wax di ko lawti lawtee fan la mujj détournement am na ci wala amu ci xaalis boobu fan moo nekkoon destination xaalis boobu fan la jóge woon ci lan lañ ko programme woon est-ce que Prodac a de réalisation loolu la Sénégal yi soxla woon gis nga kalaami bii bu ñu ko jox buzz non non non non non kalaami mënut nit dem nekk candidat ci élection caaxaan baaxul gis nga bu ñu bu ñu bi ñu commencé ba léegi ñu ngi wax ay difficulté élection yoo xamagul dina am ñu ngi wax ci ay difficulté ci ay accident ñu ngi wax ci ay difficulté ci yeneen ak yeneen yeneen mais Mame Mbaye Niang mu kalaami Ousmane Sonko du événement. ci affaire xaalisu Prodac bi nga xam ne wax nañ ko ba doyal loolu du événement je pense du événement Mansour ñu euh, wax nag ci askan ya yeewoo ca Pikine Géejawaay Mbuur ak Ziguinchor ñoom li leen sonal ci jamono ji euh, mooy euh, mbënn mi mënuñoo gis itam ndox bu set te sell ndox boo xamante ne daañ ko mën a jëfandikoo naka ne la ONG Child Fund Sénégal ak ay partenaire am daal di artu ci loronge yi nga xamante ne moom moo mën a tukkee ci boobule situation loolee tax organisation non gouvernementale bi daal di sukkandiku ci relais communautaire yi bu ko defee ñu mën a ak askan ci ak suñu correspondant Mbour Alioune Badara Sonko. xamante ne ñoo ne ca kaw ga dañuy am ay jafe-jafe ngir jote ci ndox mu sell mi ba tax na sax dafay faral di am ay njeexintal ci seen wàllu wér yaram rawatina ay biir yi métti moo tax ONG bi di fel yokk ak Cain Fël di artu te lim si jublu mooy fexe ba nga xam ni dinañ yombal nit ñu mën jote ci euh, ndox mu sell ndax ñëpp xam nañ ni ndox mi moom su fekkee sellul lay nekk ay jafe-jafe te mën na am ay jeexantal ci wàllu wér gu yaram yoo xam ne du ko bëgg noonu looloo tax euh, ñu ñëwul fii tey pour tàggat ñi nga xam ne ñooy def liggéey boobu ñu leen di tuddee ay acteurs communautaires wan leen ni ko ñu ngi si troisième phase bi et formation bi dina tax ñoom suñu duggee ci kër yi ñu mën leen wax nan la ñuy utiliser sachet bi nan la ñuy def ba nga xam dinañ mën a am ndox mu sell. ba tax na ñoom ñi jàpp ni message bi ngir mu mën a jàll foog ñu tàggat ñi nga xamante ne ñooy relais communautaires yi. rencontre bi tey c'est les relais mooy ñi nga xamante doxal liggéey bi si terrain bi ñoom ñooy séddale produit bi ñoom ñooy wane naka la ñuy jëfandikoo produit bi mais également ñoom ñooy def waxtaan bi pour wax ménage lan mooy njëriñu bi. en tout cas mu nekk ab projet bi nga xamante ne jamono ji am na gox yi nga xamante ne ñoom lañ ciblé ngir gën a taxaw askan wi ci wàllu ndox mu sell bokk na ci Pikine Guédiawaye mbuur ak Ziguinchor. kon euh, Mansour muy gox yooyu la nga xamante ne nawet bi weesu na ci suñu ginnaaw waaye ñoom mbënd bi mu ngi leen di sonal ba tey rax ci dooli ndox bu set moom mënuñ koo teg bët. <laughs> ndox mu ndox mu ñu naan itam amuñu ko mais ñaari yëf yu bokkul la am na ñu fi proposé woon par exemple experts yi ci wàllu jamono inondation yi euh, ñi nga xam seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu urbanisme ak wàllu euh, décentralisation xalaat nañu ndox yooyu du ñu ko mën a garde pour mu mën ñu jëriñ ndox moom lu ñu ko mën a seggee pour mu mën ñoo jëriñ. mais wax dëgg yàlla ku nekk xam nga loolu xam-xam validé na ko waaye suñu man-man ak suñu ambition ak suñu pasteef ak suñu yitte egg gu fa koo xam ni ndoxum daaw ma fu mu taawoon ba léegi ma nga fa buñ la ndox mii mën nga am ay jumtukaay yu koy xent ngir ñu mën koo jëfandikoo naneen buñ la neen ndox maa ngi taa xadi ba atum deux mille vingt trois am ay waxambaane yuy suux ci ay siyaan ndax di tànq ndox mu ñu arrosé yéen a fàttali dee boobu semaine bi passé dafa passé inaperçu ñaari jeunes yi doon dugg ci ay seen tànk ndox bu ñu roosee ci 2023 loolu mënoo koo gëm. Euh, ñu ni dañuy def benn ndaje ca Saly Portudal pour bëgg ndox moom ñu utal ko soglaay boole ci ndox yi gox yi gën a inondé ñoo gën a ñàkk ndox mu ñu mën a naan loolu ba laneen la kiy joxe ndox mi ñu mën a naan moo dul assume responsabilité am wala wala ñàkk sàmmonteeg li askan wi xaar ci ñoom tey xadi seen o li mu teg ay loraange ci njabootu Sénégal yi hors Dakar defe naa ni gouvernement bu Sénégal yëgul loolu loolu defe naa gouvernement bu Sénégal yëg ko famille euh, euh, kii léwoo ay famille ay centaine de famille yoo xam dañu couper seen ndox bala nga koo xam nga dëkk foo xam ni xëy na yow autonome nga ci soxla ndoxum seen o wala nga am teen te lii ma la wax nii bu leen neexee ma woo ay journalistes ñu ànd ma di leen wan ay famille yu ñu coupé ci ay dëkk yu bokkul parce que facture bi ñu leen indil mënuñu koo fay ñu mujj di rootaanu ci teen yi loolu bu boo dëkkee fuy inondé ñuy xalaat yow amoon ndox moo naan ñaar yu bokkul la ki ñu dénk inondation jox ko xaalis bu bëri pour mu xeex wàllu inondation war utal ndox mi soglaay mën koo utal soglaay kon du mën a am du ko mën a segg ki ñu jox ndox mi ni ko yow gasal ci suuf si jox nit ñi ndox seen au li mu waxoon lépp dara amu ci ndox mu gën a yomb ndox mu gën a baax ndox mu gën a sakkan ndox mu seen omi sakkanul ndox mu seen omi qualité bi dañ koy werante boo weddee duy ci benn bouteille teg ko ba ngoon jot njëg moom kenn waxaalewu ko ku doon fay junni tey fayoo ñaari junni de juróomi junni ngay fay jëm kaw seen facturation yooyu nag faw gouvernement bu Sénégal ak association consumériste yi ñu wax seen au fan la teg facturation boobu léwo yow boo amee benn forage sa kër di ko alimenter ak courant boo ci defee cinquante mille francs di nga permettre dix ñu ciy root pendant un mois li ma la wax baax benn forage nga am sa def ci pompe branché ko ci Sénélec boo jëndee courant Sénélec cinquante mille di nga permettre dix familles dix laa wax de ñu ci root pendant un mois mais seen seen eau nag léegi moom famille bu nekk mu fayee ko fukki junni mais xanaa seen eau moom ñoom ñoo moom Sénégal loolu sax moo ci doy waar euh, Léopold chéraay bi waaye euh, melokaan bi ndox bi mel gis nañu ko léegi xëy na bu ñu la ko joxoon doo ko naan waaw parce que seen seenu dañoo jànkoonte lay problème yu métti métti métti mais fan yële rek euh, amoon na ay juróom benn journalistes yoo xam ne dañ leen convoqué woon ñu ñëw woon ñu ne que euh, li nga xam ne la moom la ñu am ci comme installation parce que seen installation wan nañ ñu ko ba pare wan ñu ne dispositif bu ñu jël pour mun a maanaam euh, baral li nga xam ne moo di seen liggéey nee nañu sax ba wan nañu ay euh, maanaam ay ay produits ñu jënd ak yeneen yoo xam ne ne même ay machine yoo xam ne ne dañ ko indaale Euh, alors ay juróom-benn journaliste fii ci ndakaaru la ñu woo ñu ñëw fekkee ko ñu won ñu li nga xam ne ne moom la ñu indi comme jumtukaay parce que dañu am envie baral li nga xam ne moo di seen liggéey loolu lañ ñu wax ñu won ñu ko ba nga xam ne ne da dugg nañu ci seen saal yi ak yooyu xool donc à partir de ça on s'est dit ne que certainement que c'est où parce que ñoom sax dañoo ne léegi dootuñu sax fixé wu à Dakar mais dañuy am ut ay euh, maanaam ñi leen di liggéeyal dañ leen di tasaare ci biir région yi amee ay pla ay panne ñooñu dañuy mun a dañ leen di woo rek comme ça automatiquement ñu dem régler problème bi donc am na ay jumtukaay yoo xam ne yu bees yu ñu indi en vérité ñu won ko nit ñi nit ñi gis ko ba ñu ne léegi ñoom dañ koy déployer un peu partout dans le Sénégal pour que comme ça mais nu ñuy euh, distribuer ndox bi saay bu amee problème bu njëkk ba ñëpp dañ leen centraliser à Dakar mais léegi dañ leen tas ci région yi ba pare ñu am fa dëkkuwaay ba pare comme ça saay bu amee problème rek travers leur machine wax leen ko pour ñu dem régler ko le plus rapidement possible est-ce que def nañ ko wala defuñu ko yàlla rek a xam Euh, ci njàng meeg jàngale mi euh, Léopold ñu gis ni li nga xamante ne euh, moom moo ci doon lu ñu rafetluwul fan yi mooy greve yi élèves yi di def ñoom nag la ñu bëgg nee nañ mooy ñu gën a oyofal programme bi ci lu yàggul dara ay élèves ca diwaanu Mbour Thiès Mbacké ak itam diwaanu Diourbel daal di nañuy kon def ay yëngu-yëngal ndax li ni mel naka noonee le directeur de la formation de la communication ci ministère de l'éducation nationale daal di xam leen ni ay manipulation politique kese moom moo nekk ci ginnaaw Mouhamed Moustapha Diagne eh, di sàkku ci eh, wayjur yi ñu gën a farlu ndax jàpp na ni ay way politique kon eh, ñoom ñoo nekk ci ginnaawu seen doom yooyu le ñu déglu ko àdduna ci micro Fabrice Ngema seetlu nañu ni am na ay écoles yoo xamante ni am na ay yëngatu ay élèves yu jénn di wax ni ñoom dañoo bëgg daal ñu changé programme loolu nag jàngat biñ ci njëkk a def mooy dafa am ay jàngalikat malheureusement yoo xam ni ci opposition bi la ñu bokk te xam ni comme gouvernement bi ak président Macky def nañu ay efforts yu mag ci salaire jàngalekat yi kon day jafe ci ñoom ñu gréewloo jàngalekat yi te comme nag loolu mënuñu ko léegi dañuy jaar ci élèves yi nga téem leen a te loolu commencé nañ ko gis parents d'élèves yi ñu moytu ndax at mi ñu nekk dafa jege élection yi te am na ay njiitu opposition yoo xam ñi ngi biir école bi fas yéene paralyser école bi ci ci ay wax yoo xamante ni jaru ko ñu des ca ministère de l'éducation foofulee la ñu doon amal ab ndaje euh, ci diggante jawrin bi ñu dénk wàll wi di Cheikh Oumar Anne ak waa G7 ba ñu euh, génnee ca boobu lee ndaje rek euh, ñoom ñaari pàcc yëpp daal di nañuy déggoo jawrin bi jël engagement ne yenn ci ay poñ yi nekk ci seen i ay plateforme revendicative dina fexe ba saafara ko loolu leen nag jàngalekat yi di ko rafetlu ñu ondi ci ak kenn ci ñoom di El Hadji Malick Youm moo du ci micro Alassane Balde jëm na ci wàllu décisionnaire yi nga xam ne nii nangu na ne dana ci xaar tànk tubéyam ngir décret bi nga xam ne moo war a tànneel seen nekkin ñu signé ko am na tamit poñ bu jëm ci wàllu tàggat bi nu war a tàggat ay xeeti jàngalekat yu bëri bokk na ci ñooñu professeur de philosophie yi nga xam ne nii dañu am diplôme en sociologie joxe na instruction ngir ñu décanter situation bi bokk na ci tamit professeur yi nga xam ne nii ay euh, MEPS la ñu tey ñu war a def pour reverser leen ci biir kooru euh, PCMG yi wax na ne tàggat bi baaw te ñu woyofal ko tàmbali tamit mu bokk si tamit chargé de cours yi nga xam ne nii tey ñu ci secteur éducation notamment si mooy secondaire kon loolu yëpp ay dogal la yu fa tukkee yu am solo ñu toftal si nag ne moom. kon ci seen ndaje boobu le moo suuf mujj nañ caa déggoo euh, ci en tout cas poñ yi gën a fës. mais bien sûr dañuy déggoo loolu mbetteel amu ci xat yi parce que ay mag bu ñuy jooytu di jàmbat te ñëpp doon ay responsable comme enseignants yi bu ñu amee interlocuteur kalmu am. li doon deex jàngalekat yi di perturber année scolaire bi di jooytu di métitlu non seulement dafa ay pàcc-pàcc ci ñoom mais pàcc-pàcc bu nekk la ngay jooytu ka mu concerné du la déglu du la faale loolu mooy malheur bi daaw budul woon euh, Innocence Tab Ndiaye mi jiite euh, conseil dialogue social bokk ci ñi gën a entamé pratiquement def démarche bu njëkk bi pour mën a jigéeyante diggante ministre bi ak jàngale fekk na kenn ku nekk am na loo ëmb loo xamante ni bi bi ñu ko dajal daanaka plus moyen la étincelle dong la génne mais ministre bi ak lu man di am ak lu ñu ko mën mën critiquer man li ma koy xelal mooy loolu jàngalekat yi bokk nañ ci ñi ko formé moom jàngalekat yi dong dong ñoo ko mën a jox résultat donc bu leen snobee bu leen dumooyoo du def résultat mais bu leen dee déglu comme nii di waxtaan ak ñoom di déglu seen xalaat yàgg-yàgg dañuy am dina néew lu perturbation di am parce que jàngalekat bii dem grève moom la gën a naqat yi parce que euh, passion la ñiy jàngale ñëpp dañu ko bëgg surtout ma génération ñoom yum gii age boobu noonu xëy na ku jàng ku jàngale ku ne def fekk nga bëgg ko mm-hmm. dem defi concours bi dagg ko def formation mais mënoo ci nekk nag am ci sa teranga am ci sa famille après bëgg mu yàqu donc ñoom bu ñu dem grève ñoom lay gën a naqadi mais bu ñu amee benn ministre bu leen di déglu ñuy échanger suba ba ngoon bokk wecci weccante xel ak xalaat lu mu ci man mu jéem lu mu ci mënu mun dinaa ko jéem même bu ko deful mun na sedd seen xol ba benn perturbation du am mais di jàmbat nekk kilifa kenn faaliwu la snobale du moyu la comme ni ko taalaa doon defee loolu moo nekkoon problème bi année yi passé soo am bu continuer bu continuer logique bi même bu fekkee 40 euh, pour cent la faj ci seen ay kàddu jàmbat perturbation mun na bañ a am ci année scolaire bi parce que dafa war boole ci agenda am ci programme am di déglu jàngalekat yi di am ak ñoom ndaje di leen jariñoo di déglu seen xel ak seen xel ak seen xalaat très important mais mag doo ko snobee. li ci des kay mooy Léopold euh, engagement yi mu jël mu matal ko. fu Mansour waxee fu mu daanelee foofu lay commencer. pour wadde de que rek euh, léegi day am anticipation dama koy wax très souvent parce que booy diriger ay euh, maanaam benn service boo xam ne ne bu am doole la plupart du temps di dégg ay éco écho yooyu ngay dégg nag moo lay yóbbu nga anticiper aajuwul sax ñi nga xam ne ne ñoo di jàngalekat yi ñëw di ko xamal ne que nii ak nii la war a demee parce que dañu war a mun a di liggéey très souvent pour que su amee benn mbir boo xam ne ne day am ampleur suñ ko bàyyi noonu day dem ba nga xam ne ni day rëcc loxo donc euh, su boobaa nag ñu naan dañuy jéem a euh, maanaam araftu te fekk c'est trop tard moo tax euh, question de d'anticipation bi moo ko indil tey ba nga xam ne mu mun a waxtaan ak ñi nga xam ne ne ñoo di jàngalekat yi souvent au Sénégal parce que il faut que ñuy mun a di anticiper li nga xam ne ne nit ñi ñu ngi koy paree def parce que léeg-léeg nit ki ne day grève nga ne ko noon demal grève bu demee grève léegi yow nga jël les forces de l'ordre nga déployer leen mais avant loolu yëpp mënoon nga peut-être woo nit ki ngeen waxtaan la plupart du temps parce que comme ni ñuy wax ne que le Sénégal c'est un pays de dialogue comme le disait Senghor aussi bon il faut que ñuy dialoguer loolu moom c'est sénégalais donc il faudrait que ñu koy won tamit ci li nga xam ne ne moo di ci jàng bi moo di ci ñi nga xam ne ñooy diriger tamit ñu am tuuti benn genre approche boo xam ne c'est sur les personnes c'est-à-dire bu ñu tuuteel kenn parce que ñenn ñi suñuy revendiquer dafay am lu ñuy revendiquer la plupart ay revendications yu taxaw la léegi nag su ñu demee ba comprendre ne que ñii seeni revendication dafa taxaw tem léegi si la ñuy woo nag ñu ne kaay leen ñu négocier fekk boobu ak léegi xale yi peut-être toog nañu lu mat ay deux semaines trois semaines et c'est des retards yoo xam ne ni moo tax il faudrait que suñ la dénkee loo xam ne ne euh, responsabilité la il faut avoir l'esprit d'anticipation balaa yenn affaires yi di ñëw muy gàll solos